moo Lo mu neccu ànd ak ngëm-ngëm moo feeñ ci open press bi mbër mu noppi di xaar bés bi ñun pare nañ fatt nañ fépp incha lu mu indi fekk ko fi xam nañ fu ñu bis bi toll te pare nañoo fu ñuy mbokk lépp lu ñu war a pare pare nañ ko amul lu ñuy sóor ci mbokk Modou Lo di sas Ama Baldé da nga bëgg pare cent pour comme ni ma pare incha allah bés ba ñu jongante di la wax nag yóbbante galgal ubu làmb mbir ma yegg si wut mbir gee ko de. mbëru Parcelles Assainies gëm bu baax ne dana am ndam guddeeg juróomi fan ci weeru novembre. ñun parce que lépp lu fekk ko bu soobee yàlla amul njëkkee sama combat bopp la xam mooy li may wax rek te damay sant yàlla. buru làmb ji di woo supporters yi ñu ànd ak dal te bàyyi violence. dañuy ñaax waa Pikine di ñaax les amateurs yëpp di leen wax espoir lu war booy la mais pas mu tàggalee. boo defee mbër yi ñu li ko jàppale mooy nga ñëw ci tekk ak tey fii Sénégal lu nekk am na ju nekk am na ci jàmm lay mujjee kon nañ ko commencé ci jàmm daj dëpp gi ni ñu ko duppee dibeer bi lañu koy bëri ci arène nationale Modou mi buuru làmb ji la mu bëgg moom mooy téye couronne bi ci kanamu Ama Baldé